moo defoon mirage léegi man yàlla def ma nekk fii nii ba ma feebar fii nii ma nekk foofu Ndakaaru di fa di fa fajoo am ku ma ko bàyyee fii ku ma dénk suma kër mhm. luyee na luyee na ko fii lu war a mot ñetti at muy lekk xaalis ki nga abaloon kan la sa mbokk la su ma ko déedéet su suma mbokk dama su ma dëkkandoor la rek abaluma ko ko dama ko koo dénk rek ah, karam mu ngi fii nii dénd mhm. ak man léegi mu dem ba xeeb li mu doon lekk ci luyaas bi mu jaayi kër gi mu jaayi kër gi kër gi nga ko abaloon kër gi nga ko dénkoon waaw mu comploo ko ak beneen moromam bu bu ma dëkkal bi nii ñoo ñoo dendee ay kër waaye booba man maa ngi rek suma kayitu kër waaw d'accord fu mu jëlee kayit maa ngi ñëw ci loolu laa jëm d'accord ay ci bismillah ñu fexe nag ba daaneel suma miiru kër daaneel sumay ay néeg mm-hmm. biñ paree yàlla def ma ñëw ci diggante bi tabaxuñ ko mm-hmm. ma ñëw mu benn pant bu mu nekk ci biir kër gi ma defar ko mm-hmm. ma nawet ba noor ñëw ma tabax ma tabax benn néeg bu bu baax ma dëkk ci suma buntu kër nga koy tuure noonu lañ def noonu lañ def ba ma jaaxle ma jël suma kayitu kër gi dem dénk ko benn waaj bu nekk ci biir dëkk bi fii xaw ma nan lañ def be xam ni kooku moo yor kayitu kër gi ñu dem jël kayitu kër gi ci moom ci la ñu jaayee kër gi jaay nañ ko mënuñu koo jaaye keneen ñu jaayante ko ci seen biir mhm. nga xam ni moo dende ak man kër waaw moo ko jënd denda yow moo ko jënd waaw ba ma xamee ni kayitu kër gi nekkul nekkul ci ki ma ko denkoon ma dem ci procureur ma wax ko procureur mu ne ma bindal plainte nga ñëw déposé ma bind plainte ñëw déposé ñu yóbbu plainte bi brigade de recherche bu Touba plainte bi nekk foofu ba benn bés ma ma xëy ubbi suma buntu kër rek ma dégg ki dend ak man muy wax waxtaan ak waa këram mu na mu naan leen nañ ko song mu jóge fi ndax comme ñun jot su ñu kayit bi nëpp ma xam ni man la ñuy wax doomam bi taxaw nañ du ma xool waaye nanguwuñu tontu seen baay ma ma woo gendarme nga xam ni moo yor plainte ma wax ko ko ñëwal fii ma ma bind convocation jox la nga jox hmm. ma dem foofu mu jox ma convocation ma indil ko mu ne ma dama jox ko chef de quartier bi ma dem jox ko chef de quartier bi chef mu may enquête mu naan ma xanaa ndox yi la ba léegi comme que toujours dañuy jote ci affaire ndox wala dox affaire u mu may laaj ci loolu man noppi waxuma dara hmm. léegi am benn waay bu toog foofu mu naan ko kii mbokku mbokku taala la mooy taala mooy ki ki ki man fii kër mu ne ko waxtaanal ak moom benn paa ne ma dëkkandoor de moo ci kër da ngeen di muñalante waaye koo xam ne dafa bëgg nangu sa dëkkuwaay bi boole dëkkuwaayam hmm. kooku narul jàmm mu ne ma ah, déedéet kooku narul jàmm rek chef de quartier bi nar convocation bi mu naan waaw yoon may na la nga indaale sa avocat waaw ma ne ko waaw loolu may la convocation bi maa ko jëlee gendarmerie indi pour waa ji rek moo ci nekk ak délai bi mu war a ñëw ma woo gendarme bi wax ko ko ma ne ko waa ji mu ngi fii nii toog di rondu suma kër ma ne ma bàyyil ba suba bu fekkee ni commandant wax na ma ma dem jëli ma dem jëli ma ne la bokk mu ma ñëwal la convocation nga dem jox kër gi kenn jaayu jaay nañ ko te moom chef de bi ci la bokk gendarme bi daf maa wax ne ma ma toog ba nit ñëw indi këytu kër hmm. ne moom moom ma commencé liggéey dara nit ñëw ne ma doo ko fi defee yow da wax ne toogal xaar bañ commencé liggéey kër gi ki koy liggéey kooku la ñuy laaj fu mu jëlee këyit gi léegi léegi ki nga ko ci yoon ñu laaj ko lu tax mu bi yóbbu naa ko mu miim yóbbu naa ko ba ñu dem yóbbu ñu ba njaareem mu moom joxewu ko waaw attekat bi mu ne comme que aw ma woon seede bi ma koy dénk hmm. këyitu kër gi hmm. léegi ñoom ñu ko mën a téye damay xaar ba nit ñëw indi kayitu kër ne moom moom fii nii léegi su ko defee ma ma dem ci procureur ma wax ko man kër gi miire naa miire naa kër gi foofu la fa ban dëkk la Mbàkke la ah Mbàkke gi ci Touba alaaji mi ngi noonu moom dafa dénkaane woon këram ba yàgg mu ñëwaat bi mu ñëwee nag euh, mu jekki-jekki ñu koy xatal foofu la ca koñ ba mu jël kayitu kër gi dénkaane ko mu xëy na mu gën a ñoŋ ndekk kam ko denkaane daal am na fu mu ko def waaye li jaaxal ci li ma jaaxal ci mbir yi mooy ba mu ko yóbboo ca yoon mm-hmm. yoon dani ko amoo benn preuve kon demal nga toog xaar ba gis kuy tabax mm-hmm. ba indi kayit ñu doog a xool kayit gi fan la jóge mm-hmm. waaw xam nga moom mi hmm. eh, li mu njëkk a def erreur mooy eh, mooy jël sa kayitu kër di ko dénkaane ji ah. xam nga yooyu ay moom loolu njuumte la tamit. mais yoolu yàgg na fi alaaji dénkaane sa kayitu kër. waa mais <laughs> dénkaane ji moom kañ wax dëgg fa yàlla war naa mën a téye kayitu kër. est-ce que wóolu na ci boppam. waaw man boobu la. alaaji am na ñoo xam ne seen alal yu leen ci seen bopp. waa mais wóor wóoroo ba ba dem di ko dénkaane nit kay sa kayitu kër. comme ñu ngi koy bundu xataal. waaw est-ce li xewoon fii ba ñu roy paa boobu nee na day romb ñu naan ko nañ ko attaqué nañ ko song nañ ko nangam waaw est-ce que jàpp ne dañ ko bëggoon attaqué nangu kayitu ko pour ñoŋal këram waaw mais xam nga moo tax ba mu ko dénkaane maanaam boobu la leen ko jox du ñooñu fa lañ jaar jël ko waaw kii ta di kat yi ko jaayee kam ko dénk jaayaatu ko ñoom jaar nañ fa wala loolu laa bëggoon wax est jël <laughs> que est-ce leen ko ah, parce que nu mu def ba xam ni moom muy moo ko yore mm-hmm. kookoo ko yore kooku moo ko wax ñooñu moom waxu leen ko déedéet kooku donc bu leen ko waxee ban intention la am est que moom jaayu leen kayit ga hmm. ci prix bu yomb waaw waaw kooku na gëstu kooku ndax fan yi takk na jabar wala laa mu ngi reeree ginaar lu muy def moo tax nu kiyam di doxantoog nu muy kii ak yooyu loolu la war a lijjanti moom boo defu ndànk waajo yëngal na ko jeex na waaw d'accord alaaji gars yi du ma leen jàngal seen liggéey naam seen liggéey la ah. xaw ma ci dara mais man de su doon man alaaji ah. jàppoon ni damaa war a wéyal sama enquête du ma toog ba ni demal toog ba gis kuy tabax léegi su waaji dee nag demal toog ba gis kuy tabax waaw <laughs> waaw mais xam nga fi mu toll nii waa ji li mu wax ni man daal sony bu hmm. jël naa sama këyitu kër hmm. dénk naa ko rahim mii rahim mii ngir bañ sony bu jot ci hmm. jekki-jekki sony bu mii jël këyitu kër ga te bi ma koy dénk kii rahim ak ko jaay wala mu kii ko moom daal ki cible am mooy ki jël kayitu këram kooku la war a yóbbu ci yoon d'accord xam nga nekk fi naan ay ki ak ñuy wër kuy tabax kam ko joxoon kooku kañ moom na dem ci moom directement d'accord moom moom moom la amal affaire waa jógal que bu fekkoon ne dafa réer sax ñu naan dafa am ko ko for ñu ne xaar leen ku tabax waa jógal bala ñu laa tax foofu jógal jógal jaajëf ba subaak jàmm incha allah ci kàttan jaajëf alaaji Sanjogu Mbeng jërëjëf euh, mbokk yi doon déglu waaye jërëjëf ñëwoon ci euh, youtube bi di euh, dégloo ko def yëf bari nañ ci macha allah ñu ngi leen siyaar di jëmelo mhm. maa ngi lay siyaar ba